ñun ndaw yi ñoom politique ñoo si gën a dellu gannaaw man su ma gis-gis da gis ne nga dëkk si community nit jógee fale comme kilifa mu ngénte la kooku su taxawee lay kansuloo oo mu taxaw pour meeyo mu taxaw pour député doo ko dee mun a céliñ because dafa dee óor ne kii sa papa la yow soo waree dem sax soo waree génn sa yaa moo laa wax ne xam nga koy taxawal salila salila mu dood la isil mboka yo ɓe nga ɓe nga joxe ganaaw doo ñemee dem